di wax ci wàllu géej gi ni mu doonee ñun suñu koom-koom géej gi mën naa ne mooy deuxième koom-koomu Sénégal mbooleem ñi néew doole géej gi dañ dawal lu tax ñu ne ñun dañoo war a bàyyi géej gi nag am leneen luñ defi dañ ñoo bugg a bàyyiloo géej gi nag dugal ma dugal nañ ci gaal yi ñu dem bitim réew dee ci dee ci géej gi loolu du ñu ko def tey du ñu ko def ëllëg ndax ñu koy def ñun xam nañ maanaam seen bopp te ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu koy def loo seen réew bañ dëkk ma ne gan wala mètre sax boo dee africain maanaam bëgg ko faa am. ñoom ñu bañ ngir seen fulla ak seen fayda ak seen xel mu rëy kon fii nu nga leen xamal ni fii Sénégal la ñoo ko moom ñun nappkat yi ñoo ko moom ñun producteurs yi ñoo ko moom ñun waa population bi ma ne nañ ñu mbayee suñ géej gii bu fekkee jàmm la ñu soxla bu ñu mbay woon suñu géej gii ah. et dëgg si biir kat lépp lu ñu bu laajee bakkan sax jox la jox leen ko. gis nga ñoo xam ni dara dara dara seen seen yu seen mooy lu may wàllu mi rek ci suuf si rek tegi maanaam si mbéy mi di xëccoo ay tool ba am ndam di béy si tool yi ba jóge fii bàyyi ko seen i doom bàyyi ko seen dox ne daan rek te du fa mos a jóg léegi nag ñu bëgg a rey géej gi bu ñu reyee géej gi ñun fa ñu fan lañ jaar maanaam ba dem bitim réew gis nga jëlee fa doole eh, beneen doole bi nga xam ne maanaam moom lañ yaakaaree fii Sénégal xorom bi ñuy tubaab bi ne na xorom bi ñuy béy bi ne na baaxul non moom ci xelam ak xalaatam lay waxee. waye wóor na lu wóor yàlla ne chamam bu ba fii ni toll bi ñu bi ni mon lañ doon dundé té mon lañ dundé ba légui léegi mu mosu wax gis kenn kenn kenn ku ne manam xorom bi ñuy béy baaxul kon lu bëgg mom en en quatre man journal journalier woon ci Ndiorane ñu dédé ma man ak yidi di fay booba le roi manam moom moo mo gisé Ndiorane ñu délégué ñu fële ca Lac ngir lu mel nii bi waa la doon xamee ne maanaam ñun lii lañ jox si guddi ga keroog buñ daw doon dañuy dee am nañ fulla am nañ fayda tel fii la ëppee fii la ëppee nañu bàyyi suñu suuf nañu bàyyi suuf ñun ñaanuñu dërëm gouvernement bi ñaanuñu ñaar dërëm gouvernement ni ñu ñaan gouvernement bi mooy na ñu béy maanaam ñu daan suñu doole ñàkk dundee loolu seen xam loolu la baadooloo xam. deux mille personnes deux mille personnes boo talee suma loxo càmmoñ ba dix kilomètres dañuy ñëw suma kanam ba dix kilomètres dañuy ñëw suma ginnaaw ba dix kilomètres dañuy ñëw suma ndeyjoor ba dix kilomètres dañuy ñëw ñooñu waxuma gouvernement yi mënuñ leen jox place waa si géej gi lay